salaatu wa salaam ala ashrafi xalqillah sayiduna wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa saxaabatihi alkiram wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin nu ngi sant sunu boroom mi ñu tal ba nu egsi fii tey tàmbalee sunu nuyoo jëme ko ci alxalifa naam seydi muhammadul muxtaar ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla defal tawfiix dëgëral ko musal ko téye ko nuyu seyd muhammadul amin ànd ak ay rakkam sëñ moham al ustaas maam libaas waaye ànd tib ak suñu imaam seydi muhammad al muxtaar ànd ak bàyyi seydina mu sama bayraan ak njaboot gépp nag nu leen di dalal di ñaan yàlla yàlla na leen yàlla dëgëral yàlla na leen yàlla jàppale ah fekk feet imaamu raati bu dëkk bi di El Hadji Libaas Lo moom ñu teg sunu nuyoo mu joxal nu ko ay may nekk ci gox bépp fu ñu mën a ne ñëw ci suñu maire di dun di ko nuyu di jaar ci moom nag nuyoot maire yi nga xamante ni ñoo fi rot di bay sey naa nga ne di meeru Yoof ak meeru Kayar ak meeru Parcelles Assainies ñoom ñépp ñu ngi toog fekk feet Pape bu ASPT ASPT lu mu tudda fekk feet sunu mbokk Pape Mahawa bu AS PT fekk feet nag suñuy député macha allahu Mariétu Dieng bu réew mi di doom nag ci ñun fa tabarakallahu ñi ma gujaabi bu yeewu askan wi et Oulimata bu yeewu askan wi également waaye sunu député bu nga xamante ni maam Guèye Diop ak Fatou Ba kële di député Pastef kii di député Benno waaye di doom nag ñoom ñëpp ci dëkk bi ñu ngi leen di nuyu et nuyoot sunu médecin chef Cheikh Sadibou Diop dellu ci kilifa diine yi nga xamante ni rot nañ fi muy sëñ daam njëgën ak sëriñ Maodo siise ñoom bu ñu toogee fii li Sénégal am ci kër këri diine yépp toogal nañu leen fi walaw ñun ñii bu ñu taxawee fii li Sénégal am ci diine yépp taxaw nañu fii nuyoot sunu borom dëkk bay du daan bàyyi saa ñang ak ñanu àndal collective bu délégué de quartier certes tudd nañu maire bi parce que démembrement lañu ci mais am nañu ay taxawaay ci dëkk bi suñu mag Assane jiite collective bépp ñu ngi leen di nuyu ñëw ci force de sécurité yi ni ngeen leen gisee ñuy leen di massawu waaye di leen sant fu nu toll ku ne gis na ni moo xam police la nga dem feneen gendarmerie les sapeurs nga ñëwit macha allah ak taxawaay yu rafet yu ñu am ñëw ba ci croix rouge ak ñi nga xamante ni ñoo yore nettoiement ci dëkk bi ak yeneen ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm mais ñëw nag ci ñii ñu jàkkaarloo muy presse dans sa diversité presse ku ne xam na ni fu ñu toll accompagner nañu lii ah fu ñu toll ak ah, moo xam presse écrite la presse en ligne média d'état comme média privé yéen ñëpp wallahi nu ngi leen di amal sant di ñaan yàlla bis yii ak ni ngeen ko daan defee yàlla na yàlla gën a yombal seen liggéey ginnaaw bi nu santee nag njaboot gi ñu jàkkaar di ñoo xamante ni macha allah di kër Seydina Limaamul Mahdi ñii fi teew ak ñi fi teewul jaare ko nag ci groupement central ak seen taxawaay bu ràññiku nag ci diine ji depuis 1952 bi ko sama maam njoon taxawee Serigne Ablaye rangoo ko ba léegi loolu di dund kon ñii ko rangoo tey macha allah allah ji daa jaajoo nga fa ku ne gis na taxawaayu Daouda Mbaye ku ne gis na taxawaayu fa Moustapha Dem ak ñeneen ak ñeneen ak allah ji ñoom la fédération de daïra également ñoom ji naa allah ji ak ñeneen ku ne seeni taxawal ràññoon kon ci ñoom nag lañuy jaar gërëm sunuy daayira gërëm sunuy waykat gërëm suñu naam ñaan yàlla yàlla na yàlla teral leen yàlla na yàlla tëgal téye leen yéen bu ngeen fi taxawul woon toogul woon douze mois yi lii du mel nii kon pour bañ pour gàttal dafa am lu nu amal solo te nag dafa am ku baax am lu mu wax dafa wax ni ni'mataani azimataani laa yashcuru linsaanu bi qiimatiha bi qiimatihima illa ida faqadahuma wa huma alsixatu fi lab fi lab fi l abdaani wal amnu fi l awtaani nee na ñaar a ngi ci xéewal nee na nit ku dem ba nga xam ni ñàkk nga ka rëccu dina la wees ba ca jëkk ñaar mooy wérug yaram yi ak sécurité réew yi am na ñoo xamante ni tey jii bu ñu sañoon toog fii ngeen toog wéradi moo leen téye fa ñu toog am na ñoo xamante ni bëggoon a ñëw kaaraange ñàkk fanu ne ba mënunoo egsi kon ku ne war ngaa xool sa bopp tal ci la ñuy jaamoo yàlla c'est important kon du ñu ñëw balaa ñuy dugg ci càmm ak comme ni ko gars yi di waxee ak leneen ak leneen dafa am thème bu nu jël keroog bi ñuy waxee ni développement tudde paix ni sëy naa limaamu ñun ci lañu wàccee ci wàllu spiritualité te nag booy xool àdduna bi ak nit ñi booy xool ci jikko ay robot sax ñoo ci ëpp kenn xalaatatul tuy tëf kon nag lislaam am loo xamante ni macha allahu dakaa dugal ci géew bi diine yet ko fi mooy jikko yi jikko yi moo mën a taaral koom-koom moo mën a taaral développement moo mën a moo mën a kon nu ngi ñaan yàlla ñaar yooyu yàlla nañu ko yàlla def yal na yàlla wéral yaram yi aar réew yi aar suñuy frontière aarit suñuy kër ak suñuy njaboot bismillahi rahmaani rahim xalaqa allahu al insan min tiin suma adaafa ilay unsuran axara ar ruux wa nafaqtu fihi min ruuxi takrimun lam yarka ilay ayu kainin iqtadat iradatuhu an rakiba fi aqlan mudabbiran afala taqilun liyumakkinahu min imarati alkawni bayna qawsayn ahamiyat almawarid albashariya fi ltanmiya alilmu walmaarifa wa bijtimaai alruuxi walbadan tasiiru nafs imma faajira wa imma taqiya huwa alladi xalaqakum min nafsin waxida ala alinsan an yaxtaar aw alayhi alixtiyaar fa sual almatruux hal hunaka nafsun xuliqa min tiin wa uxra min fiddatin aw zahab fa huwa sual izal alal insaan annaasu sawaasiya kama qaala sayduna imaamallaahi almahdi alayhi salaatu wa salaam wala tanaazau illa ila alhuda wa taqwa yaa ayuha nnaas ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida sawarahu fa axsana taswir lakin galabahu lhawa wa dalaal fa asbax axat min alxayawaan tasarrufan wa martabatan qaala taala laqad xalaqna al insan fi axsani taqwim summa raddatnaahu ila asfala safin illa allazina amanu wa amilu alsaalihat nu ngi leen di nuyu yàlla sunu boroom moo xam na mu binde jël matière tabax ca nit bu doonte ni oto wa batri ba ku ne xam na ni mooy ruuga yàlla defar na ba nga ni ñoom cën mu gën a rafete ni mu ko waxee ci alquran la yàlla def ci yow defu ci kenn ci keneen ku mu bind ku dul yow nit yàlla yamu ca jox la xéewal gi gën a ngir nga mën a ràññee moom defal la xel boo gisee ñàkk utilise sa xel afala taaqiloon xanaa du ngeen xellu kon lu xel di jariñ wax la nit nag bu demee wàcce boppam ba xel mi ko yàlla joxoon muy faculté bu mu mën a ràññee lu koy jariñ ak lu ko dul jariñ ak fu mu jëm ak fu mu dul jëm dem ca kooku boppam la yàlla yoonam nekku ci loolu la nit gënee ak ku mu mën a doon ñu yàlla bindee moo tax yàlla jox nit kaw suuf mu mën kaa gouverner xel moomu nag lañuy tàggat xel moomu moom la ñuy xamal di ko defar moo fi indi ressources humaines te pour mu am xam-xam am na solo lool yàlla ñën nag boole ruux ak albadan moo boole ruux ak yaram bi ba mu leen boolee loolaay bakken yàlla nee na bakken boobu nag imma bakkenu kàccoor saay-saay walla bakkenu kuma gërëm mais bakken benn bakken yaay tàggatu ba mel na nga mel yàlla buur bu màndu ci kaw loolu nag ndax bakken bi yàlla boole ñépp ñi ko gëm ñi ko weddeek ñi ko nangam ñépp xalaqahum min nafsin waahida ndax bakken dafa ak bakkenu jamaa amul imma taqiya wa imma naqiya imma taqiya wa imma fajir kon Seydina Limaamu nee na ngëneel gi bennoo gi mi ngi ci ragal yàlla ak jub nee na bu ngeen di xëccoo mu ni fexe leen a jub kon ñàkk jubadi yàlla du ci seet kii mooy kii ndax mooy kii kële mooy kii yàlla ki mu gis mooy ki ko gëm ki ko topp li mu digle nga nekk ci yàlla nee na maa la binde nit cën na mu fi ahsani taqwi réer sa bakken puus la ba nga dégradé sa bopp ba de ba nekk bàyyi ma anga xoolal bakken bu sell set yàlla defal la nga ni ñum bu ñuy seet ku mën a yàq ca quartier ba yow ca réew ma yow ca société ba yow mais yaa ngeen ñëw ne nangam dem bay xëccoog bàyyi ma yi sax lanu yor parce que jullit walla nit bu mënula ràññee ñamu nangam ak ñamu mbaam xuux rek bu yàggee moom ca mbaamu xuux ñoo yam loolu lépp nag dañ leen bugg a wax rek maandu teg yàlla ci doomu aadama yi kon lii ñu fi bëggoon doon jàngat bëgg ko tuddee yokkute muy développement ñëw ci ni tudd Seydina Limaamu ñun aspect matériel kañ ci la mais du moom rekk ndax yàlla bindewul ca démb ci noonu ndax nit ki jismun wa aqlun wa awaatifun wa wa la yàlla boole muy nit ñun ba ñu tabaxee nit dañu xool aspect matériel mooy ne nit ki tout ce qui nangam nit ñi dañoo dem ba sax faf matériel moo leen yilif ay robot lañu lislaam ñëw ne loolu dugga système des valeurs jox leen ko nit ñi booy dem askan dugg askan ci askan ci la ñu noote ay réew ci la colonial bi sax taxawe démb Chaabulaayil Muxtaar le peuple élu tey nit ñi ràngoowaat nañu yooyu dugal nañu askan ci biir askan ñu xaajaat nit ñi dëgg amatul dëggi poos mooy am tànk sa poos a ngi fees ngay am dëgg kenn nangootul yàlla ak dëggam parce que xëj na gisagoo karwaas yu ñu lay dóor wax naa leen ci wàllu nàngam bu la ñëwee ñu naan lan la corruption mais corruption réew yi ñu ngay nattoo ñii ci par euh, transparence internationale transparence internationale ay nit ñi yow rek ñoo ko taxawal indi seeni norme ay baromètre tekk réew yi di tiit nit ñi di tiit te pourtant sa diine moo la wax ca waxam ni la arrachi wal murtashi hadis la pourquoi parce que yow dañ laa dépouiller ci sa diine jox la rek matériel réew yi kay tuddewoo yépp sax ay réewu jullit la ñu tuddee seen bopp te xadis yaa ngi fi loolu bakal islam di dàq kenn xamul kañ la mais pour nga war kaa mën a dégg tey en tant que ay réew dama laa bëgg a wax rek aspect spirituel ni ko gaa yi génnee dugal matériel ba dañ leen di oriente ñi leen di orienté gëmuñu diine transparence internationale nga gën a déglu li imam bi wax ci jàkka ji ci raasi wal murtashi bu ko defee ku ñu ni tudd sa tur réew ngay daw Sénégal di dégg benn waay woy wooy pro classé nañ ko dix-neuvième classé nañ ko ceci mais c'est quoi lu ko waral mooy ñàkk dunde suñu diine xamal sa diine nag am ouverture kon bu ñu ñëwee tey ba ñëw taxawal tey OFNAC a ngi fi et la cour de comptes nangam la pourtant ay règle ay nit ak a teg waaw cour de comptes yàlla na ay nit ñoo ko teg xam nga loo ragal rek yat yi ngay gis waaye cour des comptes yàlla ak nattu yàlla bu ci jullit book ci croyant lu mataxe dama la bëgg a wax ne rek gars yi ni ñu dépouillé dindi nangam luy diine ci nangam teg fi matériel à cent pour cent ba sax ñi tuddawoo diine seen xel dootul dell ci loolu ci ay texte yu ay nit ñi ñoom teg ci la ñuy doxee kon ñun ba ñu indi nee ni nangam tudde Seydina Limaamu dañoo delloowaat ci valeur islamique yi ndax bàyyi laay mënul a génn foofu ci loolu la wootee booleeg nag vraiment le matériel ñaar yi la ñuy boole nag mu nekk quand même liñ ci soxla développement inclusif Euh, comment dirais-je solidaire et durable donc ñun foofu lañuy gise loolu te kii jundoon na yooyu loolu moo waral thème bi ñu tànn nit li ne ci kaw suuf ci yiw ci teraanga ci lu ko nangam yaa tax yàlla def ko fi yow yaa tax yàlla bindal la lépp luy nit di jariñoo ci kaw suuf lu fi ne lu mu rëy rëy yow yaay kilifaam nit dama ni warula àgg ba dégradé boppam ba dem ca raaw raaw bàyyi may mu teg fa boppam waaye warula tim àgg foo xamante ni day bëgg a taxaw ca malaaka ya parce que déet foofa doo fa dem ñee ay robot lañu nangam lañu yow dañoo sàkku ci yow yëngu ak xel alam taraw anna allaha saqara lakum ma fi samawati wa ma fi l wa asbaqa aleykum niamahu zahiratan wa batina ila axiri gis ngeen ci gàttal balaa ñoo ñëw ci lu ñu amal solo dañoo wax développement ak lañ ca wax lépp mais loolu lépp nag dans un climat apaisé mais li ngay def kalkala bis bu jot ma wax leen que réew bu xëyee ngoon gu jot nit ñay gaat nga ay yàlla teg fa ay rek xam nga da yeewu gis à la une le vendredi de tous les dangers pour mercredi de tous les dangers ñi da nga wax ne yow ke bu leen jàng toog leen xale yi bu leen dem tey ku la ko wax looloy dem nag nga koy togg di ko togg ba nit ñëpp toog waaw bu dee vendredi bu jot ñëpp a toog ci ci seeni kër kuy produire seet leen rek bu dee àllarba ñu jot ñu ne euh, mercredi de tous les dangers <laughs> vendredi de tous les dangers ñu toog ci semaine bi bu yàggee investisseurs yi ñu amoon seen xaalis jël ko wala duñ ñëwaat kon talkala te nuy gàtt nga li nuy wax bu ko defee li yàlla rotal ci réew mi nag walla ci nit ñi man dama bokk ci yàgg na ñi gëmul jàmm nanu ñaan jàmm nanu ñaan jàmm yow jullit nga foo jullee ba mu ne asalaamu aleykum kon boobu nu mu tudd kon nag réew mi dafay am jàmmi jàkka ja am jàmmi pénc ma am jàmmi kër sëriñ ba am jàmmi am jàmmi kon bu ci yàlla moom gis nga jàmm ci conscience lay ne jàmmal du lu ñuy wax lu ñuy dunde la jàmm du lu ñu nangam loo bëgg la kee bëgg ko te kenn rek mooy joxe jàmm ci kaw nga bëgg ko mooy yàlla bëggoo ko mu seetaan la gaa yi tee ni nii xëcc kee xëcc mu ni tip fee ngay dal kee dal fële am vide bu nekk seen diggante kon jàmm ji ñuy wax bis bu jot nanu ko dunde jàmm du jàmm benn catégorie de personne boo xamante ni dëggantaan bu ay échéance di bëgg a jot di nangam di bëgg a jot ñu ne nanu ñaan jàmm ci fan ci réew mi réew mi dañ kaa war a ñaanal jàmm bis bu jot waaye gëm naa ni ñaanal jàmm sa réew mooy ngay liggéey di produire fexe ba les inégalités ndóol gaa yi mën ko fay jëlee jàmm dañ koy sécuriser par yooyu jàmm pour jàmm wax mais kaamil yi ngay wàcce dafa am ku ko moom yàlla du ko nuy ndax kaamil bi ngay wàcce ndax yaa koy yëgaloon yow ba koy wàcce seetal rek li am solo mooy na ca biir du du papier yi ngay tiim kon yàlla du buur bu ñuy caaxaane bu ñu bëggee dara naka conscience ci nangu nit ki day jàmmoo ak boppam jàmmoo ak yàlla jàmmoo ak société bi jàmmoo ak sa njaboot yow jàmmoo ak yàlla njaboot gi nga yor jàmmoo ak ñoom parce que doxaloo ca dëgg ña nga seqal koo wax du dëgg nanu jàmmoo nanu jàmmoo nañu bi ci des ndax fukki nit ñooy 17 million de sénégalais ba ñoom rek ñoo mérité jàmm bu ñu ko amee ça va bu néew ma tàkkee ñu ni kon nanu ñaan jàmm anuñ la 17 millions yi ci des loolu mooy question kon jàmm ji nay jàmmi sénégalais yépp naka ñépp a bëggandoo moo xam société politique la les partis politique la société civile moo xam ñi yorul sax nangam mais nañu jàmm dañ koy togg ci conscience yi togg ko ci nit ñi mu gën a siiw di gën a dem mais réew boo yeewoo suba bu njot ñu ne la mercredi de tous les dangers vendredi de tous les dangers semaine bépp nga am ci juróomi vendredi wala ñetti vendredi mais mani nu jàmmay taxawee ñun loolu rek la ñu gis kon dañoo yaakaar ni li ci des seeni boroom ñoom buñ ci egsee ca béréb ya daañu wax lañ ca war a wax mais ñun dañu boo wax ni jàmm bu ñu bëggee am stabilité moo xam politik la ak noo ko mën a tuddee day am ay préalable mooy mécanisme yi ñu teg tuddee mais ñaata yoon li ñuy tuddee le forces vives de la nation est benn élite la mais élite boobu li ñuy jariñe seen askan mais bu ñu dajee ñoom ba pare dimbali ñu egsiwul foofu mais bu fekkente ni jàmm ji day ñëwaat ci ñoom rek ci fukki nit mais bu yàggee lii lay jur nay doon jàmmi Sénégalais yi te nag liy samp jàmmi Sénégal te muy dëgg pire c'est la citoyenneté wax naa ko fii daaw kuy doomu senegaal sentir ni mi ngi ci réewam réewum senegaal bu melee ni tey ba ñépp a ñeenu këri diine yi wallahi wa tallahi joué nañ ci rol yu rëy ñaareel bi jàngu bi joué ci rôle yu rëy équilibre yooyu moo mën a téye suñu réew gis nga bis bu ñu juumee ak tendance yi xew ci àdduna fexe ba li nekk ci suñu constitution yi ak leneen gaa yi dindiloonu ko réew mi toj noo intelligent mag ñu baax ñi fi nekkoon cent sénégalais quatre vingt pour cent yoo ci gis ay tarixa la ñuy wuyoo manoo wax a wax a wax a wax tey jii ba génn gaa yi fii ñu toog ndax mën ngaa wax ba gaa yi duñ dem Touba ndax man ngaa wax ba gaa yi duñ dem Tivaouane mën ngaa wax ba gaa yi duñ dem Medina Baye mën ngaa wax ba duñ dem Thiénaba mën ngaa wax mën ngaa wax mën ngaa wax gaa yi dañ fay dem Sénégal amul complexe diine déedéet lii doon wax islam confrérique tey jii réew mi yor ko ay réew yu doon taal ay nangam noo ko gën a soxla fii ñu toll pour sécuriser seeni société tey yow nan ngay amee lu ñépp a soxlawaat léegi ñu bëgg la kaa xottiloo bañ leen gis ngeen këri diine yi bu dee stabilité lañ bëgg mooy facteur numéro un bu stabiliser réew mi yàlla moo leen jël def leen ci xolu nit ñi kenn mënu ci dara nan ma gëm par ci sa mbubb wala ci sa nangam nangam wala théorie di wax bu yàggee yow mii gëm ni yow yàlla ci boppam ngay xeexal cër moo la sonal mbaaxu diw gi ñuy wax moo tax nelawoo ba noppi daan allahu akbar te mbaax yàlla koy joxe kon fii lay naam rendre hommage sunu këri diine yi ñëw ci njaboot gi gis ngeen daayira yi alternative bi ëpp solo Sénégal am ka te exploité wu ko gis nga gis nga daayira yi ñu la ay xale ak i nit ñoo xamee ñu équilibré lañu ñii ñoo war a mën a jouer rôle yu baree bare ci réew mi dekki altan ci yàqkat yi dëggantaan këru diine boo fa dem tey jii lu mel nii mu nga fa taxaw lii moom la war a mën a sàmm defaraat ka téye ko mu indil nu lislaam confrérie bi nga xamante ni mag ñi ñoo ko fi bàyyi woon te billaahi watallaahi sunu jàmm ci loolu la nekk ki nga lii mag ñi doon def bis bu ñu sàggalee ba glissé jëm feneen musiba am kon fa tabaarakallaahu daañu rendre hommage macha allahu lii ay forme d'organisation la mag ñi defoon su ma nee la fii en 1968 la ñu taxawal daayira yi mais sama maam Njoon en 1952 la taxawal macha allahu tey groupement central voilà des gens organisés boo demee Tivaouane moo fa am Koskaasa nga fa. demal Touba isbu tarx yaa nga fa boo demee feneen nanga dawaayir yaa ngi partout mustarsidin ak ñépp ay dawaayir la bokkul ak ki bokkul fenn te yorul lenn te bëggul kenn mag ñiy def waaye yow boo demee ba digg Afghanistan fekk seen culture épouse ka yor naan l'islam ban l'islam nit ku ne ci ay vent de sable am ne ci ay montagne Tora am lu muy solo nga ni lii mooy colug l'islam déet da naan mooy colug bostu ya ci Afghanistan du l'islam seen culture la nit l'islam ñëw pour dépouiller nit ki ci culture loolu fi la réew mi àgg Sénégal këri diine yi dañoo am responsabilité bu rëy rawatina fi ñu toll defe naa ni depuis 2011 12 laa créé woon lu ñu tudd observatoire international bi ma koy taxawal coow li bari ak fépp taxawal ki ci nii di wax déedéet xam nañ xam nañu li ñu doon wax mooy lan mais mi ngi ñëw ndànk-ndànk waaye damay wax gaa yi ni leen Sénégal ooge déedéet réew mi ci ay institutions yu dëgër la taxaw am na ci lu nangam lu mu taxaw loolu mu taxaw nag Sénégal amul benn complex di jëggaani diine fenn wallahi diine ngi ku toog ba heure bi doo di jàng looy jullee wala dindi na sa maam da ngay def nii mais yaa xam yow ñetti siècle yaa ngi ci lislaam ak lu ko raw ñu toog ba naan naan bi da ngay def nii bii tànk danga nga naan nii mel nii c'est quoi yooyu yëpp nag mooy fii ñu toll yooyu yëpp c'est très bien beau nanu fexe ñun am na nu diine xam nga li nu ñàkk nañ ko wuti gis nga li fi andi lépp c'est la pauvreté les inégalités nanu fexe combler dindi loolu barkaati démb lu nu woote ci jam ñaajo sur la sécurité alimentaire allazi atamahum min juin wa amanahum min xawf yonte yàlla Ibrahima ñaar ñii sont liés boo toppee xiif da koy topp pauvreté dugga ñàkk dugga ñàkk dugga insécurité dugga wa amanahum min xawf kon réew nanu fexe ba nit ñi du ñu ne à cent pour cent nit ñi am espoir di yaakaar nangam di feesal li ci poos yi wala di ko ci def ba noppi ñu sécuriser leen gis nga lii ñuy wax fii yëpp am na waxtu yoo xam ne doo dox agresseur yaa nga fee ñee ngay dóor ñu semaine bi ñu rey ñetti nit sànni dara du leen ci fekk yamatuñu ci ba dugg ci armeel yeeg bàmmeel di sulli nit xeeti xërëm xeet yi gën a bon nga def ko ci dëkk boo xamante ni semaine Sénégal laa ilaha illallah ci ëpp semaine Sénégal benn am na boo demoon tey jawharatul kamala ngay dal ñii ngay wasifa nga dem fële ñii nga ca xasaayit yi di jàngal xuraan nga ñëw fii laa ilaa ilaa laa laa ilaa seydina rasulullah laa ilaa Sénégal jëggaaniwul diine loolu mooy sunu réew li ci des nag buñ ñu tas bërëb bi li muy rëy lépp ku fi xàmmee kurusu kan bu dee ci lislaam liñ fi soxla mooy jullit ñi manoo wax ni laa ilaha illallah naan kii loo yor ma xool sa kurus du bàyyi lay déedéet te li ma wax dem leen ca xutba ca ngaa xam la ca seen alimaam wax ci jullit ñi kon këri diine yi rek lay lancer message bi ñoo ma amal solo parce que gëm naa ni Sénégal lii jàmmal réew mi dëgg ñoo ci toog ñoom ñoom lañu gën a tàppoo di gën a nàngam du dool benn minorité bu ndaw parce que ñun li may wax lu ma xam la intoxication nàngam nag déedéet soit de réseaux sociaux déedéet ak ñi koy déglu ak ñi koy seet lii monsieur le ministre inter intérieur wax barkaat lu am solo la net nee na réseaux sociaux yi mooy ni nga du lenn mooy li ci mbedd mi rek wax na dëgg eh, ci la ñu jaar nuyu le sous-préfet des Parcelles Assainies jël sunu cant teg ka ci sa loxo nga teg ka ci loxo son excellence monsieur le président de Macky Sall ah ku ne gis na li mu fi def fii démb te yàgg na ka fi def nag du ma ko saraa nu ngi koy gërëm nu ngi koy sant nu ngi koy ñaanal gërëmit santit suñu premier ministre Amadou Ba Amadou Ba fii la dëkk kon Amadou bu ñëwee ba parce que Parcelles Assainies ñu ni Amadou Ba premier ministre Sénégal la mu yeewoo fii teet nag taxawee ko fi dañu ñaan yàlla moom it yàlla na ko yàlla jàppale et gërëm ci wàllu sécurité sëriñ bi Cambérène dafa am nu mu taxawe bu ngeen xoolee li nu wër lépp dëkk bi am na fu mu jëm te foofu lañ ko bëgg a jëme ki tëdd fii loolu la bëggoon muy Seyna Issa naa isaa boo koy wax dangay teg développement ci wetam defe naa ni ñëw naa sur l'autonomisation des femmes jeunes des naa Seyna Issa ba muy réaliser loolu mais lii ay 1980 je ne sais quoi naa isaa jigéen ñi fii suñuy jigéen théorie yi gaa yi indi tey moom dakaa dunde yamu ci fii jigéeni Cambérène ak yëmbal ak ñaay bi plateau la ubbi këram ci boobu jamono gardien imam àll bépp récolte yi jigéen ñi ñoo ko yoroon di liggéey ñun loolu beesul ci ñun ñooñu ñoo daan jël ñoo daan commercialiser ci nag ñoom rek ñoo ne woon Kermel ak Sandaga ci tentuwaa bi nay Issa ubbi këram jox leen ko def fa imaam def fa nangam kon ñun kenn du toog ba heure bi naan sur l'autonomie si dañ ko dund ci kaw loolu lañu ubbilee suñuy jigéen seen place ca jàkka ja ñu nga woon ca jàkka ja waaye bu jëf jotee ñu jëf loolu cosaan la cosaan nag dina dem nga wàcc sa ànd di ruusal seen xamoo sa histoire lu ñëw këf la lu ñëw doo xam lan la liy jiit woon na fi kon dañoo bëgg a wax ni rek jàmm ji ñuy wax defe naa ni falaay tëje su may wax jàmm gaa yi nan ko gaat ngu buñ ko gaat ngaa yàlla defal nu bu mu doon jàmm circonstance baaxul nay jàmm permanent na nit ñi xoolante bëggante téyante te muy dëgg yàlla du buur bu ñuy nax nanu jàmmoo ca ëllëg sa bu élection yi jeexee ku toogul say xeer commencé jógati bay eneen échéance ñëw ñu ne loolu mooy jàmmi Sénégal que le meilleur gagne nañu bàyyi réew mi nag mu dox ci ay règles yu nga xamante ni nit ñi daanu ko tal daanu ko tal daanu produire lu nu mën a wax suba ba ngoon te produire nu du amalu nu njariñ fii nag bu ngeen xoolee danoo dem dialogue national am fa ñaari commission la commission politique et la commission économique et sociale commission politique bi bu ngeen xoolee ay compétence am code électoral parti politique question institutionnelle et diplomatique démocratie et liberté très kooku les partis politiques certes ñaareel bi liy réew mi dëgg anam question la commission économique et sociale question macroéconomique impact de politiques publiques conditions de vie des population migration etc tous les secteurs sociaux notamment les volets femmes jeunes enfants talibés handicapés formation emploi etc mais lii mooy réew dañoo privilégié politique ci kaw social mais lii ñu wax tey mooy réew mi moo war a mën a jur cohésion sociale moo mën a xeex les inégalités fële aw nit seen bopp lañ ci xool d'ailleurs moo waral nanu ñaan jàmm nanu ñaan jàmm mais toujours bu jàmm amee jàmbat yi di fele kon lii man maa ko wax bu ñu bëggee réew mi dem nanu concilier les deux les politiques et le social d'ailleurs moo doon dialogue politique dialogue social donc waa jile téeméeri junniy parti bu gaa yi xëyee du ñu reer mu jëriñ leen lan donc foofu rek laay wax sëriñ bi di ñaan yàlla si ñu yeewoo tey muy Cambérène gii jàkkaarloo kii xamoon moom leen lu bëgg nëbb kii ubbi ko kii xamaloon nanu luy liggéey xamaloon nanu respect bu ñuy am ci ay institution te du woon ku ragal li ma wax sànq ñi ko jëkk a def ci réew mi yàlla baaxe leen ngeen nekk fii ci pays bi nga xamante ni macha allah réew mépp ñoo fi daje loolu nag coobare yàlla réew mi fu ñu daje te laa ilaha illallah peeg leen kenn waru faa tas kenn kii mooy kii kii mooy kële ki déedéet nanu nangu ni sénégalais yi ñoo moom seen réew doomu sénégal dëkk bu mu taxaw rawatina ci capitalu diine bu mu ne mu nga fa mu dëkk mu nga feneen gi nga defuñu ko ñi amul capital diine amuñu fu ñu jëm amul ñoo ñuy dóorante ñun sëriñ si bi ñuy bindal lu ñu tudde histoire du Sénégal bi ma aw nit seesee damaa bañ ba ñu doxalee tuuti man la ma bañ gis naa ko parce que ak lu noble lu baax la parce génn nañu huit milliards président am lu mu ca bëgg ci loolu mais dafa am lu ne woon ci ginnaaw boo amee seetlu da nga yeewu ci presse bi am ñu mer naan sama maam ñaari liñ lañ ko bindal kee naan sama maam nangam sama maam nangam gis nga finalement yàlla génn sunuy maam sunuy maam gis nga li ñu bëggaloon benn ring dugal fa sëriñ si ñuy xeex lenn ci saay-saay loolu moo doon seen intérêt heureusement yàlla ci ay nangam kon këri diine yi këri diine yi laa ne jàmmi Sénégal aju na ci yéen mais nun tim nañu mën a gën a jokk gën a mën a nangaman ko loolu kat mooy jariñ askan wi gis nga ñii képp ku leen andil musiba amalu nu njariñ ñii ku leen di dimbali fexeel ba emploi bari fi ku leen di dimbali fexeel ba ndóol gaaw fee jóg kon li nu yàlla may ci ay xéewal ci ay richesse yàlla na doon luy rot ci poosu gaay yi c'est important ci la ñu mën a jouer ci ay équilibre man cee xeex la tant que cette pauvreté là mi ngi fi yii du fi jóg jàmm ji nuy wax li ko fi ëppal solo dindi ko fi nanu fexe ba feebar jóg fi nanu fexe ba nangam jóg fi nanu fexe nanu fexe nanu fexe sëriñ biloo rek lañu ñu am doon ko wax tënk que réew mi daal sunu réew la ñun ñépp nu ngi gërëm di sant di ñaanal Sénégal nag di ñaanal doomi Sénégal yi fu nu mën a ne fii ak bitim réew yàlla na yàlla gën leen a boole yal na yàlla gën a def seen teraanga yal na yàlla gën leen a jubaale ku ci ne nag yàlla ci diversité la bind lépp li ngeen am droit bëgg gis nga bëgg ñépp ñoo ciy ànd bu ngeen dee bu bëgg nag ci la diversité ñëw ñii dañu bëgg lii ñee bëgg lële ñee bëgg lële waaye bëgg am na ba pare nanu fexe ba lii nu bëgg yàlla na Sénégal gënu moom ñun ñu bokk ko jiitu ci ñu mën koo taxawal téye ko ku ci ne lala yàlla jox waaye téye ka la nga man téye ka ña manul nañu dimbali ña ña man nañu dimbali ña manul foofu la affaire bi ne combat politique yu dul jeex economiquement lu dul delloo ginnaaw réew mi rek lay doon teewul nag démocratie mi ngi fi nañ ko gën a parfaire nañu gën ay nag mais bu mu ne alibi bu gaa yi teg rek téye réew mi wutal kay mercredi ak ay vendredi allahumma salli ala sayyidina wa